Monsieur le ministre, le temps nous a donné raison. L'État, il y a sept mois, nous avons voté la loi de finances et nous avons voté pour nous faire Nous avons parce que nous avons une prévision de la loi ou l'amateurisme, l'incompétence. Il y a moins de sept mois, nous avons fait tout sur la mu doon Sénégal ñoo poser la question lan moo xew lan moo xew ci bi ay élection présidentielle vous avez pompé les caisses de l'État dem campagne vous avez pompé les ressources de ce pays dem campagne ko campagne bi vous êtes dos au mur xamu leen leen jëm ak réew mi ni baril bi day baril bi day wàcc fii di 4000 milliards budget bi lañ ko 2012 lañ ko suba problème yoy sénégalais xol da ngay na wara a bàyyi di jouer ci mayinu sénégalais yi mo jeex parce que tay comme niñ ko waxe légui amna collègue yu bari yu ko fi wax ken nelawatul ken nelawatul ba taxna régime bi fi nek nga xamni tay il vivent dans le luxe tay bu fekkee am ngeen yërmande bu fekkee am ngeen yërmande ci population yi ba jàpp ni am ngeen problème de moyens pour avancer ce pays là nañ leen dellu si seet train de vie wu état bi fan les Mercedes 350 les présidents de commission à deux voitures plus de 100 millions en voiture nañ leen évaluer waat train de vie wu état bi teg ko ci yoon je crois que moo gën ñu jël les retombées là naan baril bi de yokk d'un franc d'un dollar

bu fekkee état bi problème de gestion bu fekkee un problème de les 500 000 francs yi ñuy fay jabaru consul jabaru ambassadeur wala consul wala ambassadeur des dépenses ni inutile yu fenn ni pouvoir d'achat dans le luxe ni calculer donc aujourd'hui comme jàpp ngeen ni après les élections nous donnons doon nañ ko hein. donc ngeen xamoon ni lii ngeen yore ci milliards seen campagne bi ngeen def ak coup de milliards luxe bi ngeen utiliser logistique bi ngeen utiliser xamoon nañ ni bala ñoo sori réew mi dana toog am problème mu xaalis fi leen doon xaar